tey nag li waral suñu daje bi mooy leeral li nga xamante ni si moo fi jot a xew mooy ñun waa coalition Mansour 24 2024 dañoo déposé suñu candidature muy candidature président Mansour nu jàlloon le 5 janvier du vendredi bi passé lu jëm ci contrôle yi yàlla dogal ci contrôle yi euh, lépp loo xamante ni si laaj nañu ko indi nañ ko dossier bi dossier yi nekkoon na lu complet ba noppi it suñu clé USB bi nga xamante ni si moom lañ defoon suñu suñu suñu parrain suñu parrain yi lépp jaar na yoon si saisie bi amul benn euh, fichier bu nu jéem a modifié wala amul dara luñ ci rax keroog ñu ngi jàll à onze heures euh, au conseil constitutionnel tout tout a été réglé bi ñu jàllee ñun ñu ngi déposé woon cinquante quatre mille deux cent soixante quatorze parrain donc ñu ñu génneel euh, vingt quatre mille quatre cent quatre vingt huit euh, non identifiés au fichier maanaam vingt quatre mille yoo xam ne dañu ne ñoom fichier bi reconnaître ko génneel ñu it euh, deux mille neuf cent dix doublon interne ak vingt cinq mille trois cent dix huit doublon externe li ci am ba am nag bi ñu ko joxee keroog dañu ñu jox PV bi ngeen gis ak clé USB bi ma téye waaye bi ñu delloo ba exploiter clé bi pour def vérification ak li nga xam ne mooy def ay confrontation par rapport ak ñun fichier bu ñu leen jox ndax bu soo déposé cinquante quatre mille euh, pare parrain ñu ne la vingt quatre mille quatre cent 88 yi ay panel la yoo xam ne seen non identifié loolu je pense que lu lu lu lu lu doy waar la ni processus bi demee nag loolu ñëpp xam nañ ko da ngay ñëw dugg ñu jël sa clé informaticien yi dugal ñu vérifier ba xam modifié woo bu nu commencé liggéey bi ñu jël copier yow bi ngay indi copier ko ak seen logiciel deux minutes ñu génne la benn résultat résultat bi nii lay génnee ci biir. salle bi ni nga koy projeté détail yi du ci nekk donc da lay jox clé bi détail ci clé bi lay nekk boo demee ba sa kër si ngay soogaay am boo demee si ngay mën a ibbi clé bi xool lan ak la si nekk donc ñun d'après suñu analyse yi ñu def par rapport ak vingt quatre mille li nga xam ne mooy euh, mooy parrain non identifié aux fiches suñu équipe nga xam ne euh, am na minimum juróom benn informaticien ñoo ci nekk am na ñoo xamante ne bi ñu tàmbalee ak léegi ñoo ci liggéey vendredi ci suba lañu ko jox vendredi ci suba ba ba tey ci suba ñu ngi ci liggéey waaye on s'est que ku mel ne Dakar ma jël lu mel ne Dakar Dakar on a déposé dix mille neuf cent soixante-huit parrains on nous donné sept mille cinq cent douze noo identifiés au fichier électoral loolu mu doon loo xam ne. lu doy waar la bu ñu defee suñu jàngat ak suñu ay analyse ak confrontation ñu def gis neen ni 30 pour cent ci 7512 yi ay fichier la yoo xam ne c'est conforme c'est-à-dire que ñoom bu lay defal rejet dañuy def trois parties wala quatre parties motif rejet numéro d'identification nationale non conforme motif rejet prénom non conforme motif rejet non non conforme motif rejet euh, euh, discriminant non conforme bi ñu taxawee ku mel ne Dakar bii nga xam ne si laay commencé numéro d'identification non conforme ñun gis nañ ni am na presque deux mille huit cent yoo xamante ni si c'est conforme gisaat nañ si yot yoo xamante ni si ñoom dañ ko rejeté waaye amul justification dañ ko c'est c'est non c'est non justifié justifié wuñ ko daanaka yooyu toll na si suñ ko xaymaa toll na si si toll na si mille mille cent soixante-quatorze yoo xamante ni si ñoom justifié wuñ ko yi nga xamante ni si des reçus justifiés et en réalité conforme dama juumoon sànq ci chiffre bi ci euh, kii bi c'est cinq mille deux cent trente je répète des rejets justifiés et en réalité rejetés est en réalité bien conforme c'est deux cinq mille deux cent trente parrains te ñoom ñu ngi indil sept mille cinq cent douze yu ñu à Dakar bi ñu ñëwaatee si li nga xam ne mooy des rejets injustifiés yoo xam ne ñoom justifié wuñ ko et en réalité conforme cest à ñoom bi ñu delloowee suñu ay pièces ñu dem à la base suñu ay base de données vérifier ko pièces d'identité yooyu existé na te ay votants neen te ñu ngi si bi loolu mi ngi si toll ci mille 174 donc loolu moom moo ñu dal à Dakar à Saint-Louis on a déposé 8569 ñoo ñu génneel 3454 ñoo xam ne nee na nekkuñu ci fichier bi dem même ka à foofu laay taxaw tuuti à Louga ce qui grave mooy à Louga on a déposé 2652 parrain ñoo ñu génneel 200. deux mille quatre cent dix yoo xam ne nee nañu identifié wuñ ko ce qui est grave et ce ci loolu mooy à Louga dañu génneel deux mille six cent cinquante deux parrain déposé leen fa déposé noo identifié yi deux cent dix doublon interne zéro dublon interne doublon externe nit ñu génneel deux cent quarante et un parrain validé ñu ngi génneel benn parrain un parrain mooy sur deux cent deux mille six cent cinquante deux parrain yu déposé Louga seen logiciel bi nee na benn parrain moo ci validé ce qui est grave dans tout ça mooy ñun après bi ñu defaatee suñu liggéey ñun en tant que des techniciens fichier ñun yi ñu déposé yoo xam ne Louga la jël nañ si lu toll ne cent parrain yoo xam ne confronté neen xool na leen cent parrain yooyu nekk ñu ci validé nekk ñu ci doublon interne nekk ñu ci doublon externe nekk ñu itam si noo identifié presque cent francs yoo xam ne mu nekk ñu si si biir cage yooyu benn benn cage donc bi ñu bi ñu remonté jël pièces yooyu gis ne ni exactement pièces d'identité yooyu ñooñu bu ñu dalee voté ak léegi voté neen élection bale le te bi ñu nekk si liste bi yàgg na du ay ñoo xam ne ren lañ bindu donc équipe technique bi veille na à ka que dëkk bu nekk boo xam ne am def nañ fa ay am nañ fa ay parrainage parrainage yëpp yoo xamante ni si amul benn buñ si buñ si jël boo xam ne noo inscrit ne ñëpp ay votaneen te Louga nee nañu benn valide leen fa am loolu mooy loo xam ne muy dëggal ni jumtukaay yi conseil constitutionnel di di jëfandikoo pour saytu li nga xam ne mooy parrainage yi des nañ koy xoolaat te dallu suñu xel beneen bi amul transparence amul transparence ndax lan il faut mu leer da ngay informaticien bi day dugal clé bi projeté vérifier li nga indi li nga déposé par rapport ak li nekk sa sa sa sa sa nu commencé vérification dañuy copier si collé si sunu si sunu fichier ñun collègue ak seen logiciel du mat sax cinq minutes on te de résultat résultats si salle bi y a pas détail on te donne que lii lan lay jox nga dem lii na lay jox nga jug dem clé bi na lay jox te ñun si clé bi ñu jox ma lim ay dëkk yoo xam ne ndax temps bi ma may pour ma leeral mi ngi bëgg a jeex waaye ma lim sur vingt quatre mille quatre cent quatre vingt huit yi nga xam ne nee nañu ay ay ay ay non identifié nañ au fichier ñu am si des rejets justifiés en réalité conforme par exemple Dakar cinq mille deux cent trente Louga quatorze lañ ci am des rejets yoo xam ne ñoom waa ñoom waa conseil constitutionnel justifié wuñ ko fenn te dañ ko rejeté te c'est conforme pièces yi c'est conforme Dakar on a mille cent soixante-quatorze Saint-Louis on mille huit cent sept Louga on a trois cent deux Diourbel on a six cent soixante-six parrains donc yoo xamante ni si ay parrains la yoo xam ne ñoom dañ ko rejeté mais justifié wuñ du ci numéro d'identification non conforme du ci prénom du ci no du ci discriminant moo tax bu ñu xëyee tey ak suñu équipe déposé neen suñu requête ànd koog suñu candidat au conseil constitutionnel wax ni li nga xam ne ñun moom lañ wax te moom lañ gis te moom lañ seetlu mun nañ ànd ay firnde ay preuve yu wane ni lii ngeen ñu jox ak ñun li ñu yor bokkul